xam nañ ne waa jaaree waroon ñoo cotiser ñu def ko suuf baal naa leen loolu li ci des mooy carte d'identité pour ñu jàll hmm. nekk candidat taxawal njaareem donc loolu moo ci nekk bu ñu taxawalee njaareem man bi ñu mujjee dem euh, élection municipale il y a douze ans douze ans man li tax gagné wu man rek maa demoon ak sama partie ak ñi aw ma woon coalition programme bi ma tëraloon pour njaareem mais dama ne Ndumbe jóg rek moo nekk njaareem képp ku xëy njaareem yaakaar dara ndumbi jóg ngay dem amoo feneen foo dem Sonacos mu ngi sukkuraat bu yàgg amoo fenn fu dul marché sama programme nit ñi liiruñu ko ñu ngi doon xool man ndax damaa njool ndax damaa gàtt ndax damaa tourné droite ndax damaa tourné gauche ci ba sama programme rëcc leen programme bi li ci nekkoon li ci gënoon fës mooy man su ma jàppee dara bëgg defar njaareem li ci njëkk mooy nit ñi am xëy li ci njëkk mooy ndóol gi buñ ci bëggee jóge na nit ñi am xëy mooy principal emploi njaareem marché bi rek moo fi nekk moo tax marché bi dafa débordé woon ba abi Avignon au lieu ñu wutal leen fu ñu leen dugal ñu déguerpir leen dañ leen déguerpir mu indi coow lu métti mais loolu bu fekkoon na njaareem ànd nag man beneen marché bu bees bi ma waroon tabax mu yeggalee Ndumbe Diop ci bayal bi ñu jël tëli bu bon boobu te mu jëm Euh, euh, tawféex yoonu tawféex parce que <laughs> donc bon moom mënuma ma ko boole tawféex nga baal ma ah <laughs> non waxin la. wax déggin la laaj. jërëjëf waaw donc euh, foofu laa naroon def marché bu bees li taxoon ma bëgg defar marché bu bees mooy comme que Diourbel amul lu dul marché Ndoumbé Diop depuis le grand moo fi nekk yokkuñu ci dara bërki dem lañ ci yokk dara parce que dafa dafa lakkoon ñu yokk ci loolu mais depuis le grand ba léegi Ousmane Camara le grand Mamadou Dia nangam dugg fi génn. ku nekk jaar na fi amul lenn lu changé ci marché Diourbel te moom rek la waa Diourbel yaakaar ku koy fëgg donc su ma defoon man depuis 12 ans marché bu bees bi ma leen wax weesu nañ loolu wax naa leen ko ku tabax kër gi ma tabax gu naa tabax marché 7 7 milliards la marché 7 milliards la hôpital 7 milliards la hôpital 7 milliards dong la ñaata milliards la Macky di defar ci ay terre ak yooyu ana waa Njaareem bu mësul gu ci terre bi anam jëriñul waa Njaareem donc aujourd'hui la mu def ko ci terre bi pour Dakar kese suñ ko xaajoon ci digg bi ñi nekk ci diiwaan yi jël seen ñu defal leen la bëgg terre bi wa Dakar diko jël mu La terre bo xamné terre bu fusul lool la parce que du ay lool la contre terre bi terre bi waroon na nekk bo xamné bu yomb ci sénégalais la mais bo sa la sénégalais mais

donc bu ñu taxawaloon askan wi fañ leen waree taxaw bon am xëy dina am njaboot gi dina sukkaliku tey jii comme ni ngeen ko waxee li ëpp solo ci Sénégal ci liggéeykat yi mooy artisan ouvrier artisan ouvrier bon mais seen xam-xam seen doole ngeen di demee aujourd'hui ministère du commerce anamu chambre de commerce bi ko Moustapha Cissé Lo yoree ba léegi fan la leen yóbbu ban foire ngeen dem lu ngeen yóbbu bitim réew lan ngeen jaay lan ngeen wone loolu mooy tàddeel Diourbel gis koo xam ne mënul dem nga dénk ko sa bopp doo dem. saa yu fi ñëwee donc seen seen seen parce man man nekkoon naa euh, chambre euh, chambre kii chambre de commerce. Mhm. mais artisan Diourbel war nañu am débouché nañ leen jàppale chambre de métier war na kurkur yi génn ay marché li ngeen di jaay ñu wane ko ah mais village artisanal demal ñu ngi sukuraat ñoo jaay. donc dans loxo donc parce que askan wi artisan donc ci man en tout cas vous faites connaître laaj ñu jox marché bu donc commerçant c'est une partie règle. deuxième euh, plan programme bi solo encore ci sama programme bi ma doon wax waxu mairie bi ma bu amul ñaq egg sa kër ñaq di upp upp upp upp nit ñi bëgg laa yërëm bu fekkoon nañ njaareem def nañ ay reboisement yoon wi yëpp ñu def ci ay garab waa njaareem dinañ nekk ci jàmm dinañ dund ci jàmm dinañ noy ci jàmm ñu ne ko teg fële tobaab la machin fële la dëkk buy romb oto weer yi di wàcc nangam nangam bon écoutez donc vraiment aujourd'hui maa ngi gërëm di leen sant ci seen euh, teewaay bon lu tax wax ji bëri mooy ay artisan ngeen benn ñaareel li ngeen def dafa am solo aussi lii la ñuy xaar ci ñi ànd ak ñun indi sa carte d'identité ne maa ngi nii salaamaaleykum boo nee salaamaaleykum maa ngi nii indi cinquante carte d'identité alhamdulilah maa ngi dem lépp lu ñu yéene woon ci yow dinañ la ko jox nga demam loolu mooy yoon la liggéey mm-hmm. tu vois donc lii mooy li nga xam ne moo ñu jàllale vraiment donc Ibrahima ñu lay gërëm di sant ci durbel donc bu baaxee ñun la et vous ne aussi ñun la mais bu baaxee ñun dinañ ci am njëriñ suñu doom am ci njëriñ suñu sët am ci bu dañuy sonal suñu Vous parce que wax naa dañuy fekk ne ñun benn zéro la commencé bu boobaa donc nañ ak suñu génération bu ñëw na ne génération bu ci topp dina ci pour jëm malheureusement génération yi di ñëw buñ ci bàyyiwul xel taxawu leen zéro la ñuy départ fekk seen morom yegg nañ dix mille donc loolu lu suñu war a en tant que doomu Diourbel vraiment génération bu nekk war na fi bàyyi loo xam ne génération bi topp ci moom dañ ñëw yeggale génération yi toppante zéro dañuy départ donc bala ngay egg feneen donc fekk ñu kaa yaraw nañ la bu yàgg donc loolu mooy situation Diourbel loolu nag bu fekkee ne ñun ñi nga xam ne Euh, ñun la war ñun ñoo juddoo fii il ñu bokk ci xëccoo bi nga xam ne mooy jël réew mi tabax réew mi tabax njaareem waa njaareem mën a am jàmm ku fi ñëw ne aw ma courant aw ma ndox aw ma lii aw ma laa man bi may nekk candidat maire laa commencé woon di def branchement comme ni ñu koy defee alpha ci xaalisam ci enrôlement yi ci financement yi man avant may nekk maire laa commencé def branchement mairie bi mënu keneen mënu boo defalee nit branchement muy naan ndox di sant yàlla di sangu xanaa kala indi ci man bu la wooyee nekk sama kilifa bi la defal ndox day ñëw nga mën a faxas say daal ñëw toog nga daal sax ñëw toog ah waxuma nga ne a jaajëf mais ma xamee ñi nga xam ne ñoom laa defal parce que man ku ma defal du ma la toppee dara waaw defal naa ba tàyyi ku xam ne xaw ma sax te xaw ma sax nu mel donc loolu moom laa fi wax sànq

président conseil départemental am na député am na te ñooñu ñëpp dañuy sàkku ci président mu jàppale leen pour defal seen diwaan bu doomu Jurbel jógee ne man dama bëgg a xëccoo réew mi nekk président pour jàppale Jurbel la li nga xam ne Jurbel tardé na ko mu dabu ko parce que man comme ni ma koy waxee loolu laa gëm Jurbel laa dëkk wax naa ko léegi lu ma am lu gën a taaru ci li ma mën a liggéey sama kër la amul benn mbindeef bu jógee fii ba Chine ñëw Jurbel te du taxaw sama kër xool nuñ ko defaree kan moo ko defar naka lañ ko defare ci biir lu ci nekk ku nekk day taxaw di xool pourtant moo ko defar li ma ci yokk plan kër gi doomu Jurbel moo ko defar parce que man ANACIM bi may liggéey kër gi newoon naa ne man jomb naa jël ku dëkkul Jurbel mu liggéey ak man. dessin wu kër gi ku ko romb waaru mais doomu Jurbel moo ko moo ko dessiné waaw ah. doomu moo ko dessiné maa ko wax defal yi defal li defal li lii laa bëgg lii laa bëgg moom mu dessiné ko mooy doomu Mbipi Wele moo ko dessiné nu mu tudd ci xale bi je sais plus doomu Mbipi Wele moo dessiné kër gi ku ñëw defe ne tubaab ah moo moo moo moo ko dessiné xale doomu Jurbel la ici euh, lycée euh, kii la jàngi ana Fallou Fallou mi ngi ni professeur am la mi ngi LTAB kii moo leen jàngal xale yooyu ñoo defar kër gi ma ne du ma wuti du ma wuti nit bu may tabaxal sama kër en tant que doomu Diourbel donc euh, bi mu defee dessin bi ba pare compliqué ñu ne ma léegi da ngay jël entrepreneur ma leen man ruus naa di tabax sama kër Diourbel di jëli entrepreneur bu nekk Dakar ma jël Malick maire bi tey moo mooy entrepreneur bi tabax bi tabax kër gi Malick Ba entrepreneur la ànd woon ak man ci politique mais maa ko jox chantier bi presque cent cinquante millions laa ko fay Malick Fall mii di taxaw fii di wax te waxuma ko dara donc bàyyi naa ko waajur <laughs> Malick Fall moo tabax kër gi euh, ana Fallou l' entrepreneur Diourbel moo ko tabax doomu Diourbel man ruus naa man dëkk Diourbel di jëli ku dëkkul Diourbel mu may liggéeyal donc loolu bi mu paree sama kër mu romb mais kan moo defar lii mm-hmm. loolu day wane ne man mm-hmm. engagement bi ma wane pour Diourbel lii laa leen wane damay laaj mairie bu ngeen ma ko joxoon dëkk bi dana gën a taaru sama kër parce que am naa xam-xam bi mm-hmm. am naa moyens mën naa ko ànd ak waa Diourbel defar Diourbel mën naa ko dama ànd ak waa Diourbel defar sama kër ku ko romb amul ku jógee Chine fii ba Australie boo rombee sama kër doo taxaw Corée ñooñu ëpp xam-xam lu rafet ci réew àddina bi ñoo ko defar Euh, euh, école Pape Fary Seye daa ko inscrire parce que kër Xaadim parce que Pape Fary Seye privé la yore dama ko war a jàppale moo tax sama doom yóbbu ma ko li euh, kii public Pape Fary Seye moo ko jàngale donc foofu lañu donc pour vous dire que donc man yàgg naa jàppale waa Ndiarème mais du ma damay noppi du ma wax dara dama leen di seetaan ndax seen jikko suma doom bu jigéen sama yaay laa ko tudde Adja Marème. mooy sama séddoo. doom yaa nga moo xam ne dañoo wàcc. doom Adja Marème. lii seen daayeen la nekk. moo jël premier de sa classe premier semestre moo jël premier de sa classe deuxième semestre man wàccoon nag waa C'est la première de sa classe. Elle fait la première. C'est la première C'est la première de sa classe. Elle fait la première. donc pour wane ne docteur Camara li ñuy lépp ci moom foog nit ñi delloo si seen man luma am mi ngi Jurbel suma doom bu jigéen moom mujj suma doom mi ngi Jurbel du deug. yaayam mi ngi Jurbel mi ngi Jurbel ci xam na yaayam donc vraiment Diourbel war nañoo avancer ci di wax lu leen wuur ci nit li ma leen di digal mooy nañu bàyyi di xool melokaanu nit nañu xool jëfu nit ak li la nit bëgg a defal loolu mooy seen intérêt te jii maa ngi sol costume di wax ak yéen

fii laa juddoo seeseen laay tëdd donc lu temps que ma juddu tëdd seeseen lu ma yéene wut Diourbel wax naa leen firnde yi donc li nga xam ne mooy li taxaw teew mooy xëccoo ñu nekk président la république Diourbel am wàll ci réew mi Diourbel teew fi ñuy séddalee réew mi loolu moo tax donc mu jël engagement boobu donc mu ni yàgg naag man 1989 xaw ma lan am nañu juddoogul woon bu ngeen ñëwee tey jàpp ci liggéey bi dañ leen di sant di leen gërëm ci jàppale bi di wax ne présidentielle ak yeneen élection yi niroowul parce que dafa am parrainage engagé woon ngi euh, pour parrainage bi y a pas de problème dina ku doon defal dara te nekkul dara bés bu nekkee dara def dara du noonu ku doon def dara te nekkul dara bu nekkee dara def dara du léegi voilà

mën na am ne euh, lu am solo la mais mënta sotti tant que nit ñi wàccoowuñu ak li nga xam ne euh, moom la charte réew mi taxawal donc charte réew mi boo buggee nekk président bëgg naa Diourbel lool wane naa ko léegi te d'ailleurs maa ngi jéggalu ñi ma ànd ak mbooloo mi parce que am na yoo xam ne nit ñi mësuñu koo dégg ci man mm-hmm. bon mais dañoo toll foo xam ne ñu nekk nii il nga summeeku ba nit ñi gis lu nekk ci yow ñu soog laa mën a euh, ci tënk nga nga nga yóbbu donc maa ngi jégalu vraiment ci ñi ma àndal parce que am na ñoo xam ne mosuma ko nangu wax. <laughs> ci biti laa nekk léegi wax c'est ça musuma ko nangu wax bon mais comme que élection présidentielle lañ jël moom la Fallou wax wax dafa jot euh, waaw c'est ça parce que donc vraiment même ñu ànd ak man bon am na yoo xam ne ñoom sax xamuñu ko ci man parce que comme li ma leen waxee vraiment nit ki bu la yàlla mayee teraanga doo def lu la yàlla di jéppee waaw man yàlla may na ma teraanga samay biir mbokk ja jafe na bu la yàlla mayee teraanga sa biiru bul def lu la yàlla di jéppee c'est-à-dire que di wane sa bopp waaw yàlla buggul kuy wane boppam lépp loo am moom la soo ko wanewul bul wane sa bopp soo wanewul yàlla mi nga xam ne loo am moom la bu ngay judd indi woo dara booy dee yóbbu yóbbuwoo dara donc loo def ci yërmande yàlla jarta wane en fait loolu moo tax du ma wax kenn donc man maa def lii man maa def la man maa non jaru ko parce que xam naa ne yàlla mi ngi gis li may def bi ma laajee mairie bi bu gënoon ci man yàlla dama ko jox mais gënul ci man parce que fa jaar waa Njaareem taxawoon di ma fa xaar yàlla bëgguloon ma jaar yoon woowu hmm, sant yàlla bu baax ñun dañuy defee ne man dama nekkaan daa amu mairie fa ma yàlla jaarale ba ma taxaw fii tey jii di wax moo gënoon ci man mairie bi nekkoon na yoon ñuul xur wu ñuul woo xam ne buñ ci duggoon tey jii duñu taxaw bi dox sant yàlla boobu moo tax ma téye sama làmmiñ jàpp sama njaamu su may woote politique programme lay wax su la programme bi yéeyee nga ànd ci programme bi mais ñaata doom laa am ñaata kër laa am ci dëgg-dëgg loolu mën nañ ko mën nañ cee bañ a egg ci politique mën nañ cee bañ a egg ci politique l' mooy docteur Camara mi wax boo ko xoolee nga xam ne du dof li mu lay woo ak li mu fi def mën nga cee ànd pour gis lu mel noonu njaareem jëm kanam mën nga cee ànd bañ xool kañ laay fanaanal guddi kañ laay tëddal guddi sama doom fu mu jaar ñaata eh, litre ndox lay naan vraiment je pense que moo tax tey jii am na depuis bi ñu commencé liggéey ba ñu bari dinañ dégg loo xam ne Euh, ca dëgg-dëgg mosuma mosuma ko wax loolu nag du pour nëbbatu mais gëm yàlla la nit ki boo gëmee yàlla doo wane sa bopp doo wane sa bopp gën di mbindeef yonent bi euh, euh, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ba ko waa ji seetee mu ne ko demal ba suba yàlla ne ko non attention incha amoo droit joxe rendez-vous te xamoo ndax di nga fekk suba yonent bi bu doon waat da doon wax ki nga xam ne sama ruu mi ngi ci loxoom loolu doon wax nit ñi fekkee ne donc li mu doon wax nit ñi war nañ ko gëm par force donc yàlla nee na nit ki boo wanee sa bopp ma xañ la sa bopp soo wanee sa bopp ma xañ la sa bopp moomoo sa bopp man rus naa yàlla may ma teraanga fi ma toll nii amul luy nekk sama xel te mënu ko am amul fi ma toll nii lu nekk sama xel mën naa ko am waaw oto bi mu doon moom lay doon président la nguur yee ko jox man maa ko jënd sama donc loolu moo tax en général man ma noppi ci waxu njaareem parce que njaareem dañu bëgg détail te détail moo tax avancé wuñu moo tardeel waa njaareem détail vraiment loolu war nañ ko weesu détail bi ñu nekkoon ba jaareem tardé tey jii man volontaire naa pour nekk candidat Diourbel loolu war na jeexal wax ju sew ji te ngeen seet man naka laay jaare ak naka laay préparé ak naka laay ànd ak yéen pour am ndam loolu moo fi des moo tax je suis futteeku ba seet wecc wecc wecc wecc wecc waa njaareem waaw kenn du jeex mu nga léegi su ma suma bopp ba futteeku ne ñaw ba futteeku ne ñaw ñu xam ne ci dëgg-dëgg deseetuma lenn lu may nëbb boobaa dinañ ànd ak man naa si ah, lañ doog comprendre fa tax ma leen di man maay kan pour nekk candidat boo xam ne day dem présidentiel waa Njaareem mën a gëm sama taxaw bi ma bëgg a taxaw Njaareem d'abord bu waa Njaareem gëmee mais ñeneen ñi dinañ ànd ak ñun te ah Njaareem gëmul ñeneen ñi duñu ànd ak ñun fii laa toog Là, c'est...